moom bu nekkee mënu gox Papa Sow mënu gox la ndax géejewaay rek xam nga géejewaay jàpp Baxdaad jàpp ba Parcelles yooyu ci géejewaay la bokk xam nga kon Papa moom tamit mënu gox la su ko ñaanal yàlla daal yàlla dafa ko tam seen biir ci wàllu seen temps la. mais tey mën nañoo gis Papa Boy Djiné ci bëre wala ci xeex wala lan ngeen ko préparé. préparé na ci bëre yëpp ci bëre ci xeex ak ci seen temps moom la bu ñu ci ñëw rek. fekk ko ci kàttan yàlla waaw. Alioune Seye ñu bari li ñuy laaj ñu ne qu'est-ce qui se passe entre yow ak sa poulain yi waxuñu ñi nga bokkal écrit mais gis nañu mbiru Guédiawaye yëpp Alioune Seye de daf leen a ñu bokk benn entraînement. waaw c'est normal man moom mbéy mi Cheikh laa naa laa tëddee Guédiawaye amul frontière boo yëpp samay rakk lañ ñëpp samay rakk lañ muy ngir waaloon ngir bu ma fadama ngir école Balla Gaye lépp mën bu nekk Guédiawaye rek. sama rakk nga moo tax sama wàllu wàllu ma nga rakk laa laay doxee ñoom wax yàlla mu am benn xam te ne yéen a koy préparé muy Alioune Seye Junior ak Mbaye Doudou combat boobu fan ngeen ci toll combat boobu ci kàttan yàlla kaase nañ ko coore bi nekk rek ñu xaar ba 30 ans incha allah yàlla defal ñu ndam seen biir bàq nekk mais Alioune Seye lan lay xaar est ce que mën nañoo xaar ne Alioune Seye 2 balaa saison day jeex dina am la dégg Alioune Seye am na combat bàq seen naaw waaw waa info bi di leen bëgg rek di leen santaat bu baax di leen ñaanal yàlla seen info bi xam nga dem ba nekk waaw yaa ma gën a xam ba waaw ba nekk ca kaw a kaw a kaw parce que seen Ahmed Fatma Dia ngeen liiru jaan ba kii waalo liiru jaan borom ngénte lu neex liiru ñu ngi lay nuyu waaw maa lay fay Fatma Dia hmm. te borom info réew mi ah. waaw waaw dafa leer ah borom info réew mi waaw ah, ah. liiru tey sa teewaay ah ci stade bi waaw sama rajo mooy ko yàq la sama rakk la. lan ngeen indil Papa Yade. lan ngeen indil Papa Yade. waaw papa jënd la indi. mais lan ngeen hmm. na suuf la mu bi mooy gis nañu ne géej waay pour l'instant yaay def buzz. ku ne. pour l'instant yaay def buzz géej waay. non non non non non. non si da naa xew nii rek. ay non non xamal la nooy ñun ay Baye Fall la ñu xew xamal la ne problème mm-hmm. li ñuy wax rek ñun dañoo ñeme dëgg ñun dañoo ñeme dëgg dañoo direct ñun amuñu ñuy ndax laakal amuñu ñuy ndax dañoo ñeme dëgg lu bëgg ñun ñëpp doon mbooloo nekk benn at mu amul solo dañoo jógee ci bis bu mag yàlla suturaal ñu ñu gis ñëpp ñu gis nañ nu mu demee. Balla Gaye yàlla suturaal mu daan jël bu rëy bu ñu jëmaal bu defaat benn bis bu mag booy ñaar dafa dugg génn woo kat jot foofu ah mu ñëw war a dajeeg la dageer ah tey nit ñi ñëpp war a jóg bu ñu tuddee buy mbër kenn wax a xaar ñu lay woo dañu war a jóg jàppale la dageer ndax jàppale wala dageer sa bopp lay jàpp ndax ñu lay doomu géejawaay la géejawaay boobu ñor bu géejawaay ñorul nag yaa xam kon am nañu géejawaay ñorul bu géejawaay ñorul daa yaa xam ñun doomu géejawaay géejawaay moo ñu ñor lu ñu bëgg nanu booloo bokk ndey bàyyi yéenante jàpp jeex a jeex àdduna amul solo. àdduna amul solo àdduna amul solo. mais énu bëri gis nga Balla Gaye gis nga Balla Gaye. nee na àdduna amul solo. barke Serigne Bamba su jeexee rek jeex nañ bokk ndey bàyyi ñun ñëpp rek booloo su ma gisee Pape Madia Pape Madia Pape Fale man ma Pape Fale su boobaa looy wax su ma demee ak yow da nga naan ko waay soo ko jàmbalee defal noonu waay waay waay wala defal ci lii moo koy daal lii moo koy daal moo tax ñu war a yéene te jàmm du la jàmm dafa neex dafa neex dafa neex jàmm dafa neex. neex ay fareem. neex ay fareem ci kaw ci kanam. ay Pape Madia ay Pape Madia ay Pape Madia Thank you. waalo waa waalo lépp ñëpp ko waa jéego waay ñëpp ko Papa Yada képp kuy lépp mais bu ñu am loo yëngu jar na yor. ndeysaan loolu jar naa yërëm ndax papa booy jibe dafa jibe ci defet nekk xale boo xamante ne daa am lu mu war a prouvé papa yaada dafa jibe ci victoire moom it bëgg a dem ci kaw nga xool ñaari xale yi ñu ngi demantee baaraam papa booy jibe mi ngi def waaye daa rukki waat papa yaada door na papa booy jibe papa yaada ndeysaan door na door nañ papa booy jibe door na